mel ni pendant le Covid. boo ko fayoo doo jot sa bulletin pendant le Covid y trois mois yoo xam ne élèves yi leen doon jox ay subventions mais malgré ça. ils vont voulu obliger les parents d'élèves à payer. ko fi on a eu des euh, groupes on a même. le collège privé Sacré-Cœur. avec euh, le collège Dior des parcelles. en pagaille mais et puis. loolu dafa dafa doy waar c'est immoral. nga gis l'État a diminué sax le prix de l'inscription dans les privés. nga gis mais respecté wuñu ko nii ci parce que y' a pas des y' a pas a pas de mesures d'accompagnement. y' a pas des des autorités qui contrôlent l'effectivité de ces mesures ba pare di sanctionner les manquements en fait ñoom dañu jël en otage l'État. xam nga état dafa yomb a jël en étage. ok transporteurs yi dañ leen di jël en étage euh, euh, ñëpp dañ leen di jël en otage enseignants yeeg ñëpp. ba oh, waaw <laughs> bañ nañ ko ba ma ne ñoom ñëpp laa wax dinaa ko xam de. ñi nga xam dañuy occuper terrain wu jàmbur ak ay ñoom ñëpp dañuy menacer état. Mm. état nag bu demee ba ñu koy menacer. ba ay transporteurs. par le, exemple pour donner parce que c'est pas l'État avec grand E c'est euh, l'État politique. parce que mécanicien bu ñu joree ay récépissé carte d'identité naan mu ngi nii bu élection yi di ñëw waxuñu l'État parce que l'État restera toujours là. loolu sax benn réaction la mais dama lay bëgg a woon ni a pas d'autorité ici au niveau de l'État je prends un exemple c'est l'enseignement ou bien c'est valable pour la justice c'est valable pour la santé dañuy xëy mot d'ordre de grève boo xam ni c'est illégal parce que. non remplissent pas non da nga non non collectivité territoriale. waaw fi mu ne nii nit ñi mënuñu ah. am extrait de naissance. pour seen jaam dongi benn ngoog oh seen doom jàngi. oh les grèves bi. l'administration ñu ngi ci 18e plan d'action le service public il est permanent. donc bu fekkee ni dafa am ñoo xam dañuy exercer seen droit de grève c'est leur droit mais ñu respecter la loi maanaam joxe préavis pour que état bi mën a jël ay dispositions. état bi mën a assurer service minimum parce que ñoom dañu war a assurer service minimum mais même bu ñu ko deful l'état doit prendre des réquisitions pour réquisitionner un personnel suffisant pour assurer le service c'est valable dans l'hôpital c'est valable dans l'école c'est valable dans la santé et la justice mais lan la état di non seulement da ngay grève ñu di la fay donc grève boobu di jeex non grève boo xam parce que boo grèvee kenn waru la fay sa syndicat moo la war a indemniser ci seen i fonds ñoo xam mais kenn warul grève ñu di la fay surtout dans l'administration où c'est des deniers publics yoo xam ni kenn waru ko fay nit si le service n'est pas effectué mm-hmm. yow jàngale woo mm-hmm. wala fajuloo nga grève ñu di la fay kañ ngay arrêté grève xëy tëdd sa kër ni mu neexee julli tëddaat ni mu neexee <laughs> ba 10 heures nga jóg ndekki. chômage technique. mais voilà. mais grève grève bu leen defee ay ponctions du droit waruñu la fay droit la mais c'est un droit qui est organisé. constitutionnel. non c'est dans la constitution c'est dans la loi c'est dans le code du travail mais il est réglementé et soumis à des conditions tu ne dois jamais mettre en péril l'entreprise ni le les populations tu tu ne dois pas les mettre en péril loolu la wax mais boo demee ci benn hôpital ñu lay wax rétention des informations médicales mhm. loolu du du grève loolu parce que tu permets pas au médecin tu lui donnes pas les renseignements médicaux qui lui permettent de soigner quelqu'un qui est en danger mhm. kooku bu dee dañ naan yàlla ko rey mhm. parce que Dieu c'est le coupable idéal euh, euh, li ñuy wax aussi kii euh, dañuy xëy suba teel ni bon dañuy liggéey ba 10 heures après ñu arrêté. débrayage euh, débrayage euh, kii xaw am na tur yu bare yu ñu koy englobe yoo xam grève illégale la mais ngay grève ñu def pour waaw waaw waaw euh, kii d'humeur mouvement d'humeur lu ne nag mais nga grève ñu bañ la fay ponctionné la nga menacé ki la pon fonctionné mu delloo la xaalis bi loolu lañ gis Sénégal dëgg la or état bi dafa war jël ay réquisition obligatoire requérir le service minimum aussi bien dans les hôpitaux euh, à l'école ou n'importe où et même dans le transport transporteurs yi xoolal ni ni souffrance yi ñuy indil population yi bu ñu grévé mhm. alors qu'il y a un service minimum qui doit être assuré parce que le transport public de voyageurs c'est un service public que l'État assure un peu ak kii euh, Dakar Dem Dikk mhm. mais qui est donné aux transporteurs état bi dafa war a régler seeni problème déglu leen comme waa collectivité locale yi état daf leen war a déglu état dafay respecter population respecter ay travailleurs am mais transporteurs yi bu ñu xëyee di defuñu transport nga gis nit ñi di dox nit ñi kii ñuy toog seen kër alors qu'un service minimum devait être assuré on devait réquisitionner des transporteurs. Hmm. ni leen par force yow am nga dix oto cinq yi war nañ daw boo ko deful on te retire l'agrément lan moo ban état moo ko fii def dañuy bàyyi nit ñi ñuy dox ba géejawaay kenn xamul y a des gens qui sont malades qui doivent aller à l'hôpital y a des gens qui doivent aller à, à un rendez-vous d'examen ou ñu bàyyi leen état di leen seetaan donc on a un état qui est super faible qui n'a pas d'autorité